alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihaali bi furudin wa sunan sakartuhu liannahu qad saxani li watani bihi nafa ma anfani leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen yëgal nañ ne yoon mu ngeen fi masaa ñëw rek yóbbante naa leen leen a fi man tey nag yóbbante wu ma dama bëgg ngeen toog seere li nga xam ne ñu ma seqal war a wax ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkke moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may fas juddoo lillahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëkk loola rek leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen bi seenu pay de moom awu ko seenu cantit lott naa waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ma walbatiku nag nuyu sa sama bokki ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg weesuwut Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu nuy daariloo mën caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na leen ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yow ma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góor góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen koo war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jariñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ji li ci ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def da leen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk waxtaan ak génn ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub sëriñ tubaab bi kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ci loolu mënuma lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan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 mursal nga ci ñu ngay waxal ñu yónni ci ñu ngay waxal yàllante nag nga xam ko mbay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla lu am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii maa aataaka allahu daara àllaaxirata loolu la suñu borom wax loo am sàkku ci sa kërug sa kërug àllaaxira wala tan sa nasiibaka mina dunya sa cër ci àddina it bu ko fàttee kon nag kuy wax ku nit war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen a wax lu leen di jëriñ nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi li bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak ñun ñeen ñeneen ñii bi ci ñëpp yowmal kenn ku ci ne da nga yàlla ba ne yow dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum aati yi yowmal xiyaamati fardan wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaati fi mu'minan qad amila salihati koo xam ne yóbbaale nga fa ak gëm ak jëf yiw fa in fa ulaayika lahum darajaatun ulaa rek la leen di defal daraja yi gën a kawe kon nag nun murit suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci Sëriñ Tuubaa la wéeru na leen wóor cëng ne Sëriñ Tuubaa la nu jaayanteel Sëriñ Tuubaa la nu topp Sëriñ Tuubaa mi nu topp nag ku topp ku ci moom ci yonent bi nga topp danaa joxe li ko waral ku ku ku jaayanteeg moom it yonente bi nga jaayanteel te ku jaayanteeg yonente bi yàlla nga jaayanteel ina yu bàyyi noona ka inama yu bàyyi noona laa ma it ci ni rasoola fa xadaataha allaha kon nag diggante sëriñ Tuuba ak yonente bi laa bëgg nu waxtaan ci digga ma yonente bi defut loo xam ne da koo da koo gonte lu mu xëyee rek la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tudde muy sëriñ Mamadou Moustapha bi ca keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy sëriñ Fallou bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy sëñ Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy sëñ Mouhamadou Bachir koo xam ne koo jur tuddee ko kon wóor na la cëng ne keneen amul ci yow ab jët loolu kenn nattabli ko jox na ko léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom sëriñ Bamba Sall la tuddan Mouhamadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Mouhamadou Sall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 ñaan ko lenn taxutoon mu di ko liggéey lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéey li amul daxaa nii li ixdaami nabi xubbu saatihi daxaa nii ilaamati nabi xubbu saatihi liggéeyal gi mu koy liggéeyal ak tagg gi mu koy tagg bëgg jëmm ji rek la dara galudu loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahat mahabbati yal muxtaaru sayiduna kubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fizaau lahu xarban xadiman lahu mustaaniri sanada loolu ko ku bind deseeloo kooka len kon seene ci yonent bi kon di gëm a yonent bi natteeb li wunu ne ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rekk la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ Tuubaa mooy jëmm ji tur wane jëmm lay wut lay woo koo xam ne bi nga ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee doo soo tudd murit bu ñu la dee wax murit moo tax loolu kenn nattabiliwu ko nag mu leer leen ni leen mu jëflanteeg taalib yi lu lu leen leer la lu ngeen war a xam la dafa wax ne moom day fam mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defan ci garab nit ñi dëkk wër ko te ñu fa jóg li muy def ci toppees ko itam def ko julli ñaari raaka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na tam doon liggéeyal dëpp na euh, dëpp na ko kàttan te loolu lu ciy firnde moo di dëkk murid boo gis ci àddina moo ko sanc ndax moo joxee turo moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko fa ñi ñii dañoo far bi fas takk ko yónnee xeb la ko nañu yóbbu ca suuf ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu fab ko suuf ci seen bëj am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ ko denc ne dañ bu jëndee yóbbaale ko waaye benn murid bu dëkk fenn bu ko ndigalam dëlul foofa amul kenn ku topp kenn nit koo xam ne du sëñ Tuubaa tax mu topp ko amul loolu na leen wóor nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci digganteem ak àddina àddina yett rek lan fi gisan mujjite woo ko amatul yenteel taalibe yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg ci ñoom fu mu ci ma sa toogal won na la ci boppam wan la ci sa digg yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn benn taalibe bu bëgg di moroom mu amul ngir la mu xam ci Sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak la mu ko won ak la mu ko dal bëggul di moroom loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa moroom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo ci kenn kooku kon won wane na ne liggéey ci taali bi moo doon wàllam ci àddina li ci daal mooy alxuraan alxuraan dafa wax ne yowmal xiyaama ci kenn ku ne sa pàgg tiifu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne ak malayka ñëpp gis ko ba ma xamee loolu laa def alxuraan muy sama pàggu téef moom mi jóge ci yàlla jëm ci yonent bi ci jëlu sat loolu moo waral mu daa ko bindu di ko jàngoon dëkk bu mu mas a ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu bëccëg ñu jàng ko yaari yoon fu mu mas a sañ ci loola lañ fay def ba njaareem ngeen loola du fa jóg tey jii Tuubaa ji juróom-ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa ju ne bés bu ñu ne daañ fi jàng ñaari kaamil yu suba ak benn bu tisbaar ak bu takkusaan jënd gud te dëkk bi lee mu am téeméer rek waaye loolu jënd gud loolu kon won na leen ne moo seddoo mel na it nag séddoo gi mu séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp nga toog ne fii ni benn taalib bi ci taalib yi xam na turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab kaamil wutal ko jëfira ëmb ko ci malaanum séer jox ko kenn ma sa gis nag mën na ko mën na ko ci loxoom lenn lu lu kaamil lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax mas naa ñëw jënd pañub guro jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa dégg ne bëgg nga goro mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi goro nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg dara dul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa tàllal kaamil bi sëñ bi téye ko ñaari loxoom ni ko ah yow de si kaamil bi wow na lool fa farixan kastatum ji ci suratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xasin bañ ko ubbee noonu la kon ngeen xam ne alxuraan la fi nekkoloon ci àddina benn li ci na muy tuubaa gii nag tuubaa moom juróom-ñaari at la fi dëkk ñu jële ko fi dellu si at yu fi ba wuy wuy ji boromam waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mi ngi naa rabiste ji waltu ko mil maana waytu lata tuuba la fi bi ka tumanaa fii ka bu diyaana mi ngi wax yesir jox yi di tuuba wax mi di wax ni asagara waltu tibli sama iskaan ku dul jullit fi fi la fi la la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jàngee fi la ñëppam dëkk waaye nag tubaraanke gone day am na ci dëkk bi ndax man mi di atum kayit ga la ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu nit dee jàpp ay ay ndongo di ko tartan di ko naan ngir ngir ñàkk ndox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay donga du koy wër di ko ñaan feebar na ngir bëgg koo naan mun naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ci wëgg sama xar loolu fekk naa ko ci Tuubaa ji toog naa ci Tuubaa ji itam bu bu dul séenee luy guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yooxu ne daa jom lenn luy leer day su ko gis loolu loolu fekk na ci Tuubaa ji ab sanc nag balaa ka juddoo ci sanc ba mën ta xam na neexitu sanc ba mel waaye ka bàyyi ko woon ca gent ba ñëw ci sanc ba de lu yokk ci sanc ba xam na léegi nag Touba li ko sëñ Touba doon fonk fonk li ci njabootam gi doon dëkk dëkk li mu fi ñibbi si ñibbi si ñëpp a ne fi gisuma gisuma lu ci dolliku ci biiru moomagul sunu bopp lenn ndax gis naa rek rek weesu wutan di village ci biiru kàndong jaraaf di fi dëkk xam naa fi jaraaf bi ñu wax maam kootar mbët saw ca mbët saw moom tudd laa ko fi tegoon xam naa fi jaraaf bi ñu wax mbaxar xam naa fi jaraaf bi ñu mbaar boobu ma xam dëkk weesu foofu waaye loolu ci cëriwut nag mooy wax ne kataballahu tabaraka wa taala ana dawlata nasara intaqalal huna min aydihim ila aydi xayrihim nu di ko jàng di ko gis mu noo xam lu ñu fi moomeelu nasaraan yi dana toxoo fii ci seen loxo nekk yeneen i loxo xamul woon ñoom tey nag bi réew mi moomee boppam ñaari présidence yi amagul ci li ma gis bu jëkk bi li mu def ci rëccu gis naa ko ndax kàntongu kayal ak kàntongu laa ñooy dëkk département yu léegi am département lañu ko tuddee am na fi ñaar fukki at def na ci ñaar fukki forage kon mel na ni at mu ne forage la fi def gannaaw boobu ci bàyyi ko ki ko fi wuutu juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fanweer ak benn ci lu ma wóor comme neex booy boo ñënd sama Tuubaa ji itam man du ma wax lu leer lu ma leer rek laay wax ab fi ñu jëlee ko fi akum marché léegi leneen lu fi ne ki ko fi def su fee taxaw di immigré dara kon nag buñ dee gor ñun ñi nga xam ne noonu la ko defal noo ko war a wax tey jii lu mu ko nekk ci département bi juróom-ñeenti forage gi si biir dëkk yoo xam ne moo ko def ci fi bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko ci wàllu kër docteur infirmier d'état la fi bàyyi woon la jëkk loolu bu fi neen masa gaañu am rak la ñuy dëbb rek tay ci loxom intervenir d'état bi moo fi mu jën moom la ñu wax ba mu ñëw fi jiilum ñaar fukki at yi su ne kooku la fi def kii def na fi ab hôpital kooku ñu faj la ci tund loolu jëf la ñu war a wax li ci dolli ku itam mu di wàllu lamp yi wàllu lamp yi yegg na ci téeméer ak ñaar fukk ci ay kilomètres yoo xam ne ay buumi làmpali ci ci dëkk bi li dalee daru man ba Touba loolu leer na man nañ kon nag jooju jëf ju set la te lu ci jëf sëñ Touba lañ ko jëfal loolu na leen woon ndax département bi moom dëkk bu ci ne sa dafa dem sëñ Touba jox ko ndigal moo sañ fa kër nekk fa kon nag lu ñu bi ci sëñ Touba lañ ko def nag ma di leen xamal ne su fekkoon te woon ne doomu aadama mooy fal bu wóor day danaa leen wax leen nan ko fal te bu ñu ko falee waaye nag ginnaaw doomu aadama mu mënu ko yàllaa koy def yàlla moo ne allahuma maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw wa tansihul mulka bi man aw mooy buuru buur yi mooy jox buur ku ko neex moo koy jox moo ko génne ci ku ko neex ginnaaw loolu moom liggéeyub yàlla du liggéeyub doomu aadama waaye kon am na lu doomu aadama man carte yi nga xam ne war na ko soxla ci ñun daal ku ko ci mooy yàlla wenn rek fa yóbbar ba loolu na leen leer dama di leen yëgal ne murit buy waaxu soli dàllam di dox ku ko neex di ku ko neex di sangam waaye murit bu ñu tëlee ci jat ba ci man mi gën a bon tax ku mu neex may fëttési baree murit te dox waaye daal murit bu ñu tëlee ci jat jëmee ko àllaaxira ku ko ne am nga sang bu dul sëñ Tuubaa waaw bu mënoon a jóg ñëw doon mën a jóg bu jógee du fa bu yet des li fa dal ci sa kaw loolu kenn nekk sunu borom nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa sa saa fal yumin wa man saa fal yakfur kon bu fekkente ne neex na leen gëm leen ku mu naqari weddi waaye la day bi mu ko waxee ba àggal boo toppee fal yëkk pour jëleen ca teg yaakaar naa ne weddi du solo boo ko ba ci bii sa saabu wasa at mur safaxan da nga xam ne mutu ko fal yoomin ci lam ca teg boo ko ba ci ni ma sawaabu wax sunat mur safaxan da nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci war ko wax gannaaw yàllaay fal buur li mu li nga xam ne noonu moo ci sunu wàll daal nañ ko def bu ko bu ko kenn mooyal saw carte murid bu ko mooyal saw carte rek war nga sëñ Tuubaa loolu la li kon nag lii seereloo maa ngi lii laa seereloo ngeen seere ko lii rek war a wax yi ma waxal doon ko jot yi di leen na leen wóor sëñ Tuubaa liggéey na ko jëkk tey loolu man mën naa koo xam am naa ci firnde yu ma leer yàlla na yàlla saxal ci jamono ci suturaal ci musul nu ci dimbali nu ci barke lépp ginnaaw waxtaan wu am solo wi Medoune fal ak délégation bi daal di dem ziare ji Serigne Abdou Khadir Mbacke jottali ko ak ngërëmu président Abdou Diouf ndokkeel ko ci màggal bi sàkku ci moom ñaar. ba ñu berndelee délégation bee gan ñi ba noppi Medoune fal àndaat ak délégation bi ci bëccëg dem nemmeeku ji bibliothèque ba bu Cheikhul Khadim ñu fekk fa Aliou Ndao mu waxtaan ak ñoom ci néegu téere yi ni mu ñu ko defal woon sànq ñu génne fa nemmeeku exposition étudiants yi Atou Diagne jëwriñ ji ànd ak ñoom faram leen pavillon yi foofu nag lañuy tàggoo mbokk yi Moustapha Mbacke Gueye doon leen jottali màggal gi ñu bokk ànd ak yéen di ñaan yàlla ak rasulillahi sallallahu alayhi wa ak seen Touba mi ñu wéeru ci moom te yaakaaruñu dara lu moom mu yëwanal ñu suñu mbiri àddina yëwanal ñu suñu mbiri alaxira xéwal yi tasaaroo ci biir àdduna si yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi على الثغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا